sant yàlla bu baax di julli si yonant bi sallallahu alayhi wa sallama di ñaan ngeen maaneem dotteeku ci suñ sëriñ Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu ñu ngi ndokkeel bu baax Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo doon jàng alquran ju neex ji ibbeel ñu min almuminina li rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi jullit ñi nga xam ne dañoo wante ak yàlla suñ waxee ñi nga xam ne dañoo wante ak yàlla dëgg-dëgg ku ci nekk soo delloo danga nga gëstu lan nga kóllërewantoog ak yàlla ak yow lan nga mëtal ci loolu mu ngi jàng alxuraan suñ xel mi di daj ñaan ak bàyyi waxtu wu nekk ñuy xam ne yàlla nangu na ko benn naar dafay tagg baay mu ne lam ansa leylataha bi daari kastoori qiraati cheikh bi tartiri wa tuuri wa tuuri ma samiat uzni wa ma waqaat nazri ma nazrat bi daari kastoori duñ fàtte mukk bis nga xam ne maa ngi fekk Cheikh Ibrahim Niass këram ci Dakar tax suñuy tànt ci Dakar lu yàlla la di ko jàng comme ni alxuraan wàccee xam nga jàng alxuraan baax na mais ndax ñépp am nañ digal pour jànge ko ni mu wàccee foofu la problème bi nekk mu ne suma nopp man mosta dégg alxuraan ju mel noonu mosu mosumaa gis nit ku mat kuñ tàggat kuy jàng comme alxuraan jooju noonu su ko defee su ñëwee di doomi Cheikh Ibrahima Niass di sëtam jàngal ñu alxuraan ji dañuy wax laa garwa ñu ndokkeel bu baax zikarkat yi euh, Cheikh Serigne Mbaye ku yàlla may tawfiq la bisam toujours suñuy jàng da ngay wala ñuy zikkar da yëg xaal bi ni muy yëngatoo bàyyi ci si an nafaxaatul malikil gani bi siyaahati fil ardi ba ma ko wa Guinée bi mu waxee fa qultu laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu ilahu fa qaalaha alkuffaaru walmajuusi wal umara fa taabati nufuusi bi ma waxee laa ilaha illa allah bàyyi mu ne buur yi wax nañ ko boo bëggee dégg waxu bàyyi nag testeel sa boppu nga xool ku nekk bi nga juddoog léegi yaa ngi tudd yàlla ba bëgg a dee ndax nit ñi roy nañ la am tiibul nufuusi ku ci nekk sa baay mi ngi doon tudd yàlla sa maam mi ngi doon tudd yàlla sa sëriñ mu la dàq tudd yàlla mi ngi doon tudd yàlla waaye ndax fi laa ilaha illallah résultat bi am léegi moom la amoon ndax déet bàyyi mu ne bi ma waxee laa ilaha illallah man xéeféer yi roy nañ ma ci wax laa ilaha illallah buur yi roy nañ ma ci wax laa ilaha illallah umaraa yi majuus yi nga xam ne léegi lañ tuub defalaguñ yàlla dara roy nañ ma ci laa ilaha illallah ñoom ñëpp ñu am tiibu nufuusi loolu di lu yomb liñ doon xaar nuxaar yi wax mooy summa taabati nufuusi ñu xam na diggante wax ji ak mbaax ji am na infisaal lu leen tàqali waaye baay mu ne bi ma waxee laa ilaha illallah ci tàng-tàng bi ñoom ñëpp bañ ma royee dañoo yegg fi ñu leen di xaar kon su ñuy tudd yàlla nit ñëpp di yëg yàlla dëgg-dëgg war nañoo ndokk war nañ leen a ndokkeel ñoom mais ñun war nañoo ndokkeel Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu ngi ndokkeel bu baax Cheikh Serigne mbay mi nga xam ne Baye mi ngi ko tuddee Cheikh Serigne mbay ñas mi ngi xam nga xam ne dafa waxoon ne mu ne sëriñ bi duñ ko bëggee ni ñuy bëggee lekk su fekkee danga koo bëggee ni ñuy bëggee lekk mu ne soo xiifee dootoo ko soxla duñ ko bëggee ni ñuy bëggee naan kon soo maree dootoo ko soxla mais danga koy bëggee ni nga bëggee sa dund ki baay dafa nekk ci bato gi mu xool baay ba mu yàgg mu ne ko xultu lil fulki wa hiya fi lbaxri tajri fa min baxri ilmin muqimin qad taxammalta ruuxa kulli waliyin wa safiyin wa aarifin wa xakimin dellul na nga xool darajaat yi nga xam ne moom la wax ne ko bato na def nànk nga yaru na nga xam ne kooku nga yenu mooy ruuxu bépp waliyu kooku nga nga yenu mooy kooku nga yenu mooy ki xereñ ba nga xam ne képp ku xereñ ci moom nga jëlee lool mu ne ko kon nag na nga yaru kooku moom la ko bàyyi tuddee muy nit koo xam ne ku nekk xam na ne toog xam nga wax ñetti xaaj la am na koo xam ne waxam daa u am na koo xam ne waxam dawaa u la mais am na koo xam ne waxam shifaa u la daa u wax joo xam ne yow waxoo ko pour dara pour yàqal nit ñi rek am na aarif boo xam ne bañ ko yaree ba pare bët bu set luy tayalloo nit ñi mbóot mu mu àggul rek dafay nit ñi pour ñu egg ci kooku ko toppee daf lay tardeel am na koo xam ne waxam dawaa u la moom àggut ci mais mën na laa tegtal gaañi nag xam ne ma huwa shifaun wa rahmatun Mbay gis nañ ba sonn koo xam ne daf lay wax na la daf lay ooye tur ci garaat balaa déwén ñu yëg ne yow doon nga meer mu bind lu ndaw jox la balaa déwén ñu yëg ne doon nga lu nekk li ma bëgg a wax mooy cër yàlla daf ko nangu bàyyi nag bi muy wax fii li fi dajee bàyyi wax na ci medina rajaatu yowmahu ila konakiri qasdi madinatun zawil basairi man kaadaha fa laysa za bidairi jara zuyulaha ala alxawaadiri li annaha madharu faydi alxaatimi fiha rijalun zawquhum kalxaatimi bàyyi mu ne fii ci medina am na ay góor yoo xam ne seen mos ci yàlla dafa mel ni ibnul arabi alxaatimi te Cheikh Sëriñ Mbay ci ñooñu la bokk suñ bëggee wax nag ci taalibe ak sëriñ foog ñu xam ne sànq damay wax ak baay mu ne ma dafa am ñoo xam ne yàlla daf leen a may seen wax dafay ànd ak samra ma ne kon danañ mën a waxee samratu sidqi wal adabi fil muridiya suñ ko waxee xanaa danga gis ne li baay waxoon tamit dana feeñ waxu baay baay mu ne simaar bi am daax kon da gis ne mënuñoo wax ci ni taalibe bi meññet ak résultat bi ñuy xaar ci moom ak teggin bi ñuy xaar ci moom mais munuñ cee wax lu dul su paree danañ ko xirtal mu roy Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu xam nga taalibe ñaari xaaj lañ taalibe boo xam ne moom bëri na bàgg ci darajaay suukar am na taalibe boo xam ne bëri na ba àgg ci darajaay xorom ndab dafay jàngale yàlla suma sëriñ oustaz dafay faral di wax mu ne ndab zeyru neen la légum yu bari ñoo nekk ci biir ñam gi mais du légumes yëpp la ñuy tudd ceeb yàpp lañ koy tuddal mbaa jën yow nag su fekkee taalibe nga war ngaa bëree ba nga xam ne suñ la tuddee suñ tuddee sëriñ bi ñu tudd la am na taalibe boo xam ne bëree na ba nga xam ne moom mën naa seey lool ci yàlla mais nag ba léegi àggut fi ñu koy xaar su ko defee kooku su suukar la gis nga suukar bi mu namee bi mu mënee seey ci ndab li lépp loo laal ci ndab li far fos mu saf ci xorom bi mu na mooy na moom ndab lu ñëw dafay seey lépp loo laal ci ndab li daf ci dafa daf saf waaye suukar ma ne am na taalibe yoo xam ne mun nañoo bokk classe mais nag bokkuñ niveau mën nañoo bokk tenue yu ñuy sol mais bokkuñ niveau suukar soo seetloo barab yim nangoo dem yëpp dangay fekk ne balaa moo dem dangay fekk ne ndab li dafa sedd su ndab li tàngee soo ko yebalee daf lay wax mënumaa dem am na taalibe boo xam ne su seddee lool mun naa xëy mais mënul gont xorom su ndab li tàngee jër soo ko ebalee mu dem su su seddee boo ko ebalee mu dem moo tax xorom lim mën a fekk ji suukar suukar bu nu koo fekk ji masalan tey meew mën nañ cee def suukar mais mën nañ cee def tuuti xorom kon moom mën naa fekk ji mais yàpp mën nañ koo xorom mais biñ ko suukaree kenn du ko lekk moo tax fuqahaa yi ñu ne suukar bu duggee ci ndab mën nga koo jëfandikoo ala aadatin mais mënoo koo jëfandikoo bil ibadati ñu ne xorom bu duggee ci ndab mën nga koo jëfandikoo bil ibadati mën nga koo jëfandikoo bil aadati dafa am taalibe boo xam ne nag moom lu na mee ci darajaay suukar la yem xam nga sunna ñetti xaaj la suñ dajee lum gàtt-gàtt war ñoo xam ne li ñuy def war nañoo xam lan mooy cëslaayam xam nga sunna ñetti xaaj la am na am na luñ tuddee sunnatul li mooy loo xam ne yonent bi daf koo wax am na lu ñu tuddee sunnatul fi'li am na lu ñuy tuddee sunnatul iqraar yi ñenn ñi naan kon taxriir mooy loo xam ne dañ koo wax ci gannaaw yonent bi walla ñu jëf ko ci gannaawam dañ ko dañoo koo wax ci kanamam wala ñu jëf ko ci kanamam ak loo xam ne dañ koo wax ci kanamam mu noppi ci àdduwut ci kon suñ bëggee wax taalibe yi ne leen dañuy wax ci samratu sidq lum gàtt-gàtt war nañoo daw bàyyi dafa wax alxaaji abdullahi doomam su may joxe ci Baye rek damay jël référence yi nga xam ne moo ko gën a jege Baye Abdoulaye doomam gannaaw lettre boo xam nga xam ne suñ déggee lettre bi buñ delloo rek taalibi bu nekk dana xam ni mu war a mel Baye mu ne alaaji Abdoulaye wala taltafit ila usulika wa jududika fa inna abnaa ashuyuuxi awil akabiri kasiran bi anta kaza wa anta kaza wa hada xijabun wala xayra fihi li ann mujarad al insaabi ila maadi laa yugni fi xaal wala fi mustaqbalin na ko wa ahdasuka bi sidqi bi anni kuntu muridan li abi saadiqul iradati qawiyul ictiqaadi qaddamtuhu kama law adraktu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam bàyyi mu ne nekk fii tey di gën askan wala ngay gestu ci lii nga bokk wala ci nangam nga bokk bàyyi mu ne li gën a bëri ci doomi sëriñ si wala doomi mag ñi loolu moo leen a tere ak jot seen may yi ak seen maxaama yi bàyyi na ko rombal loolu dégg nga bàyyi na ko sama bàyyi xaddamtuhu kama law adraktu rasulillahi salallahu alayhi wa sallam dama ko doon liggéeyal comme kuy liggéeyal yonentu bi salallahu alayhi wa moo tax nit munta ñàkk a liggéey mu dem ba leetar bi mu ne kuntu xarisan ala tuuli baqaihi li attaqizuhu sanadan wa li aqdumuhu su ma baay dama ko doon liggéeyal mais damaa xiroon lool pour mu yàgg fi may ñaan pour mu yàgg fi ngir ma jàpp ko pour suma wéeruwaay waaye nag ma di ko liggéeyal tamit moo tax taalibe munta ñàkk liggéey bàyyi wax alaaji abdullahi na ko wa kun aaliyal himmati alhaaji abdullahi na nga nekk koo xam ne ku kawe ite nga wa kun waladan laa mujarradi waladi mu ne ko nekkal nekkal nekkal taalibe kun muridan waaye bul doyloo doom ji rek weesul loolu weesul loolu fa innana laa nurisu maa indana illa al muridu sadiq ñun suñ mbóot yi bàyyi mu ne kenn mënu koo doon lu dul taalibe bu dëgg mu ne waladan kaana aw aqan aw ajnabiyan nekkal sax doom ma jur la wala nga nekk mbokk bokk ci askan bi wala nga nekk jàmbur sax nga xam ne fële nga jugee nu la neex nga sant te xam ngeen ma mbiram bàyyi mi sant moo tax ku ne doon nga lu nekk ku ne doon nga lu nekk bàyyi mu ne nanga xam ne ñun dañuy doon inna naa laa nuurisu bil intisaabi ñun duñ doon doonnoo ci askan kase ci la bokk nag ñun dañuy doon nooy ci fàggu lool dañuy doon nee ñun ci dëggu waaye dañ ñuy door dañ ñuy doonne ci farlu kon képp koo xam ne da ngaa bëgg a roy baay war ngaa xam fi ngay jaar ba nga xam ne da nga mën a jot ci say may da nga mën a jot ci say may dégg nga su ko defee kon suñ bëggee wax taalibe yi niñ bëgg a mel danañ leen wax baay dafa wax Seydi Ali Cissé na ko fa fala budda min al iqtidaai bi man saxiba al machaayixi fi cheyayni kamaali l ictiqaadi wa wa dawaamil xidmat yi bàyyi mu ne Seydi Ali Cissé na ko munta ñàkk ci képp koo xam ne da ngaa pare pour roy ñu munta ñàkk nga roy mag ñi nga xam ne ñu ñu àndoon ak sëriñ si ci ñaari jikkoom mooy na nga fexe ba nga xam ne yow da ngay na ngeen am pas-pas boo xam ne pas-pas bu mat sëkk la nit mën ngaa fexe ba am pas-pas mais pas-pas bu mat sëkk la bàyyi wax bàyyi mu ne nga rekki sa na nga rekki sa na bàyyi mu ne suñ defee loolu pour ñu àgg fi ñuy xaar dafay yomb pour ñu àgg fi ñuy xaar dafay yomb résultat bi ñuy xaar kon su ko defee suñ bëggee royloo nit ñi war nañ leen wax na leen nañ góor lettre yi bàyyi yooyu suñ ci delloo pour ñu mel ni ni ni bàyyi bëgg dafay yomb pour ñu mel ni bàyyi bëgg dafay yomb tey nag ku fi am xam-xam wala nga commencé am daraja wala nga commencé am lu la neex dangay ngay foog ne yow yow da gëm na sax yaa war a kawe ñëpp yaa war a kawe ñëpp dama wax ci benn waxtaan ma ne football dafay jàngale yàlla ma ne léegoo léeg am na nga tee bal bi di daw jëm ci terrain bi di dugal yi léegoo léeg am na erreur booy def yow taalib yow yow yow mi ci stade bi bal bi yow mu doon dugal yi dootoo dugal yi mais bal bi nga doon daw dugal yi dañ koy arrêté ñu jëf bal bi mu jëm ci sa mu jëm ci sa kaay kon moo tax képp koo xam ne da ngaa bëgg dugal ci yàlla xoolal ni ngay doxee ak teggin xoolal ni ngay doxee ak yar ba nga xam ne bal bi dootuñ ko tourner mu jëm ci sa kaay dégg nga boobu nag suñ ko tourner mu jëm ci sa kaay affaire bi garaawagut léegoo léegi nga dem di dugali ñu arrêté la ba pare waaw mi ngi may signalé su ko defee ñu sant yàlla bu baax du wax ne nañ góorgóorlu roy baay munuñ buñ koy roy munuñoo ñàkk a jàng munuñoo ñàkk am xam-xam mais munuñoo ñàkk a jub munuñoo ñàkk a jub bàyyi mën na baat mën na baatin lool ndax ñu fi dajee yëpp di pukkare woo baatin xam nañ ne jëleewuñ ko ci kenn ku dut Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ñi fi jot ju ñi fi nekk yëpp nga xam ne soo waxee ñëpp mën laa dégg waxuma kuy wax lu kenn mënut dégg nag ndax bàyyi ci Égypte le 10 mars 1961 xam ngeen ne fa lañ ko tuddee woon cheikh lislaam ndax ajjumaam jooju mu jiite woon nga xam ne bi mu paree waa ji ba mu koy taaliq daf koo wax na ko innana mubtahinuuna ala mustaqbalil islam maadaama fi muslimina am saalu dayfuna al azimi cheikh lislaam ñun tey am nañ xel mu dal ci avenir l'islam fekk jullit ni ñi nga am ku mel ni suñ gan gu màgg gi cheikh lislaam waxoon na imaam Hassan Cissé bu yàgg benn bis daf koy xoolloo na ko duggal ci suma maktaba bi nga seetal ma nga bindal ma turi téere yépp bi imaam Xasan Siise duggee di bind turi téere tuuti bàyyi ñëw na ko na ko wa yawma amuutu laa atruku lakum illa hadihi lkutub man taallama wajada nasibuhu wa man lam yataallama laa yajid shay bis buñ ma dente dencee ba pare aarif yi xam nañ ne ba léegi dente dencaguñ baay aarif yi xam nañ ne ba léegi baay mi ngi continuer du dox ay mission xam nañ ko bu baax a baax duñ ci dugg dafay xaw a gudd bàyyi na ko bis buñ ma dencee nañ xam ne lii rek mooy ndono li nga xam ne moom leneen bàyyi képp koo xam ne jàng nga tegu ci yoon wi njub danga nga jot sa cër moo tax taalibe bàyyi nañ jàng nañ man maarifa lool mais nañ man sharia ndax mooy jiitu nañ man maarifa lool mais nañ man sharia bàyyi dafa waxoon ne bi muy yóbbu doomam yu ñu jàngi daf leen wax fal taalamu wal taamalu wa allimu waltazamu luzuma ma la yalzamu izan tanaalu kulla ma tashaaw diinan aw dunya kama yashaaw na ngeen jàng mais na ngeen jëfee li ngeen jàng kon suñ ko déggee dalañ xam ne suñ jàngee ba pare jëf moo ñuy woon taalibe kan la na ngeen taqoo li ngeen jàng suñ jàngee ba pare dañ xam ne taqoo ko mooy tax ñu xam ne ñun taalibe bàyyi na ngeen jàngale suñ jàngee ba pare jàngale ko mooy tax ñu xam ne ñun taalibe bàyyi leen baay mu ne su ngeen defee lii tegu ci yoon wi jàng njub na ngeen xam ne seen garantie soxla yi yàlla moo leen koy jox waxoon na benn bis bi xale yi dafee discours ba pare bàyyi di leen bàyyi di leen encouragé daf leen wax na leen fa inna mustaqbala kulli watanin innama yatawaqafu ala shababihi lakin la ala kulli shubbaanin bal ala shubbaanin musaqafina dhawi al axlaaqi alhamidati walhimmami alaaliyati fa amma shababun bila saxaafati wala axlaaqin fa garshun bila samra fa jiddu wajtahidu fi taxsili alilm laysa ilmu alfaraidi wannawafili fa xasbu wa laysa ilmu alxisaabi fa xasbu wa laysa ilmu allugati wannaxwi walsarfi walbalaagati bi furuuciha fa xasbu walakin shaariku man taraqat himumhum ila ilmu alasraari kawn bàyyi mu ne réew mu nekk loolu nag lettre boobu war nañ di ko jàng ndax réew mi soxla na ko réew mi tey dafa soxla ñu tàggat ndaw ñi wax leen niñ war a mel tey ndaw mi réew mi loolu la soxla réew mi duut mooy ŋàññante wax lu la neex duut mooy rayante ndax xam nañ ne buñ demee ba réew mu mel ni Sénégal li fi dajee ci ay borom xam-xam yëpp suñ demee bay ŋàññante wala ñuy wax lu ñu neex kon war nañoo xam ne àgg nañ ci rayante kon wuruñ woon yegg foofu bàyyi dafay nettali xadis yonent bi dañoo wax yonent bi ne ko iza wajadna umara ya'khuduna minna huquqahum wala ya'tunana huquqana buñ demee ba jamono boo xam ne ñi jiite am pouvoir dañuy jël seen daraja yi ci nit ñi seen xaq yi dañ koy jël te ñoom duñ leen delloo ñoom seen xaq yi bu boobaa nu ñuy def yonent bi mu ne atuhum xuquqahum watlubu xuquqakum min allahi tabaraka wa taala bu boobaa jox leen leen ñoom seen xaq yi te yéen seen xaq yi ngeen laaj ko yàlla di fa bëgg taalibe mu oser pour dem ci yàlla mu dem ba nga xam ne moom mooy amee cerveau bi moo tax léeg leen nga dégg gars yi di wax lu nekk nga gars yi dañuy wax rek góorgóorlul ba àgg ci niveau yi gars yi nga soog a wax mais boo àggut ci niveau yi gars yi bëgg a corriger gars yi wala nga bëgg fee nekk ku nekk nga ne nekkut ci dara wala duut dara déggoo ko bul wax ne newut ci dara dégg nga bàyyi bi mu koy bi mu koy sharaha dafa wax ne hada dalilun ala anna al maliku walaw kaana walaw kaana zaliman yajib taatu loolu dalil na ci ne ki la jiite dontu daf lay tooñ waxut day tooñ yàlla xam nga tooñ la ak tooñ yàlla du benn nit mën naa jéggale tooñam bu fekkee aarif la waaye nag mënta jéggale xàq yàlla bàyyi mu ne bu fekkee dañ la tooñ sax mu ne li war sa njir rek mooy nga déglu ko te bàyyi ko xel parce que dafay bañ yow en tant que ndaw ngay protéger sa bopp balaal xàq yàlla yi ngay protéger sa bopp balaal xàq yaay yàlla su ko defee ñu ngi sant yàlla bu baax di ndokkeel ñi fi nekk yépp bàkku wóorut fi laay tëjee am benn waay bu dem ci benn barab di wax ne moo fi ëpp xam-xam moo fi gën a rey xam-xam moo fi gën a am xel moo fi gën a def lu nekk bi mu demee jàkkaarloo ñu boole koog benn dof am nga nit booy bàkku yàlla li gën a doyee di liñ jàpp ne moo gën a doyee loolu la leen indil bi mu ñëwee di bàkku dof bi na ko yow da ngaa da ngaa da jongante ak ñëpp mu ne ko waaw mu ne waa jongante goo ak man kon li tax nga ne yaamaro ñu génn ci yow ci biti ñu laaj la yow ñu ne yow dof bi loo ko wax mu ne ah daf wax na ma luqati sa benn bët bi ma ne ko ma luqati sa ñaari bët yi mu ne mu wax ma ne ma la ba ci kaw ma ne ko ma dóor la ba ci suuf moo tax nit suñ ko tàggatut waxtu wu nekk pour mu yàqu dafay yomb Baay dafa waxoon Seydi Ali ci ilhaaq mu ne ko waqum ala saakil jiddi fi tadrisi wa xidmatil bustaani abil xatabi wa nashitil ahbaabi fi xidmatina wa laysa maqsuuduna an dalika nafaa anfusina walakina nafaa aidun lahum wala karamata akbaru min xidmati lii la allah la ilaha illa allah allah allah ilaha illa allah الله الله لا إله إلا الله الله الله إلا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله لا baay mu ne wala karamata akbaru min xidmati lii fi xaqi man lahu basiratu walakin allaha satara dalika in tatafadala ansibaa'u wa sawfa yandamu man xasara fi xaqina xiina yabdu ann alkulla fi xabdati wala xawla wala quwata illa billah wa laysa fi hada alkalaamu shukrun wala gibatun bal kalaamu naasixin sadra an isni su ko defee te yàlla bu baax dana xaw a jafe sax pour ñu jaaralee ko ni ñu ko bëggoon a jaaralee waaye bu sëriñ bi teewee dëgg-dëgg xaw a lottu lool pour wax dara ci kanamam sëriñ la boo xam ne ku nekk xam na ne ñi fi nekk yëpp moo leen tàggat moo leen defar sëriñ la boo xam ne boo ñëwee ci shabaab bi dangay gis ne diplôme bu nekk nit am na ko sëriñ la boo xam ne soo ñëwee ci shabaabam bi dangay gis ne nit ñi jàngal na leen mën nañ gauche mën nañ droit kenn gënu leen a xam yàlla genn gënu leen a yaru kenn ëpp leen xam-xam kenn gënu leen a mën a wax ak nit ñi ba pare ñu gën a yaru nit ñi ñu gën a yaru nit ñi moo tax sëriñ la boo xam ne li jafe woon ci jamono yépp pour bañ fi ne tubaab yi dem nañ ba nga xam ne rab yi test ne dañuy ñàkk yépp jamono bii ñëw ñu ngi leen jëli ci réew yu daj yu sore di leen produit pour ëllëg moom sëriñ la boo xam ne jikko yi nga xam ne dafa waroon a tumuranke yépp dajale na ko pour tàggat nit ñi ba nga xam ne suñ waxee mu tegtale baay suñ jëfee ñu tegtale baay suñ meloo ñu tegtale baay raditu bi rabbi walxanifatu maslaki imaami rasulillahi la ataxallafu dalili rasulillahi walbayti xiblati nasuumu wa bilbayti araami nu tawifu nusalli sujuda raakicina wa innana ala zadna rajna dëhra la nataasafu ñu ngi gërëm bu baax lu ci mat nañ xam ne ci sëriñ bila la lu ci manqué ci ñun la maa ngi ànd ak suñ directeur daara ji muy Seydou Nourou mi ngi fii teeg ak suñ soxna Cheikh Ibrahima Niass suma mag ànd ak Baye Cissé mi nga xam ne mu papa Serigne Mahi mu Baye Mbaye mi nga xam ne jotaay bii bi muy sos ñun ak moom ak Cheikh Serigne Mbaye mu pàpp nag ñooy ñi ko njëkk a teewe ak Serigne Alaaji ñas mii ñun ñooy ñi ko njëkk a teewe ñu ngi sant yàlla kon suñ dajee dañoo yàgg a gis résultat moo tax heure bu Serigne bi ootee ñu ñëw ñu ngi jéggalu dañ doon làccantu ci kanam Serigne mënuñoo wax lu jub ñu ngi gërëm muqaddam yi fi nekk yëpp ku mel ni Cheikh Sang Ndiaye ku mel nii Cheikh Baye Fall ku mel ni Cheikh Konte Baye ba ci oustaz Basir mi nga xam ne xam ne dëgg-dëgg su waxee ñëpp seen xel yi dana dal ñu ngi jéggalu bu baax lu ci jub ci sëriñ bi lu ci manqué ci ñun la wasalaamaaleykum wa rahmatullah